waaw Choumi TV mi ngi leen nuyu Choumi TV mi ngi leen nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni vidéo bi fekk na ñëpp si jàmm mais kon ne encore une fois di leen rappale ñi nga xamante ni ñu ngi door am ne chaîne bi Choumi mi ngi leen wax rek ne leen welcome back to the channel yéen a ma gën a xam mu naa ni comme rek ni ñu koy faral defee waaw mën naa ne sama gars yi vidéo bi nag c'est un peu étrange quoi waaw c'est un peu étrange parce que <laughs> normalement waroon naa jox bu yàgg mais yéen a ma gën a xam moom moment bi nga xamante ne le rapport Omzo daala mi ngi doon génne album bi moment boobu noon fekkoon na ma jël bu yàgg ci YouTube bi parce que su ma juumul toog naa benn un mois boo xamante ne def ma vidéo dama seen ba bëgg si ngeen fàttali ko ne daala Dollar dafa programme joxe benn date ne boobu la waroon génne album bi et ko pousse waaw moom ah bi nga ko poussé nag moment boobu noonu fekkoon na ma def pause YouTube bi presque benn un mois boo xamante ne ginnaaw ñu ci bëri ci amuñu chaîne bi gisuma ma chronique quoi. Choumi TV nag bëgg leen wax ni situation bi passé na depuis très longtemps ñi ci waroon wax wax nañ ci mais comme que chaque fois damay lire ay messages yu filmé nit ñu bëri dañuy ñëw samay commentaire vidéo des fois di ma laaj ñu naan seen lan moo tax waxoo ci album Omzo Dollar bi Omzo Dollar dugg na fi génn fi. Choumi TV ñëw rek pour résumer ko pour wax leen li ma xalaat ci album bi ñëw ma pour décortiquer ñëw pour cax jéem naan maa ngi maa ngi maa ngi chroniquer à cent pour cent mais dama ñëw rek pour résumer ko pour wax leen lan laa xalaat ci album bi. yéen ñëpp gis ngeen ni sama gars yi sincèrement y avait beaucoup de polémique mun naa ni Omzo Dollar a reçu pas de critiques ci ñenn ci sénégalais yi du ma ne ñëpp sax waaw mais ñenn ci sénégalais yi man Choumi nag sincèrement ma gëm ni sénégalais yi ko doon critiquer ci album bi. Euh, mën naa confirmer ne xëy na yu film yi seen niveau ci ab gaal seen moo yeggul foofu rek waaw parce que man Omzo daala bu demee ba génn album sax am ay nit yu ko ciy critiquer naan album bi lii ak lii waaw sincèrement nit ñooñu tamit ñi nga xamante ne ñooy dund game bi war nañ toog ñu analyser est-ce que ñoom sax war nañ wax ci hip wala est-ce que ñoom xam nañ lan mooy hip hop waaw waaw sincèrement le rapport Omzo daala du un rapport boo xamante ne dafa cuune quoi sama yi waaw mënul génn un album dix huit titres dix huit yëpp ngeen bëgg gëmloo sénégalais yi ni dix huit benn son neexu ci. film yi nag naa ni yow sa niveau moo yeggul foofu en tant que chroniqueur waaw nag naa ni yow sa niveau moo yeggul ci niveau album Omzo Dollar parce que aussi il faut ngeen comprendre sama gars yi ne album boobu noonu la rapport Omzo Dollar génneew ko pour sénégalais yëpp. waaw sincèrement quoi génneew ko pour ñëpp. ñi nga xamante ne dañoo tàmm déglu style boo xamante ne fa rambax comme benn style ngaaka blende i filmi l'album de Omzo Dollar mun la impressionné quoi waaw képp koo xamante ne aussi da nga am habitude di déglu style rap bu dëgër bi naa ne album bi mënu la impressionné mais Omzo Dollar soo leen xoolee nu mu titré album bi sax war ngeen mën a xam ni loolu mooy concept album bi ci boppam parce que mi ngi ko titré saay saay poésie you know saay saay poésie nag dafay refléter premier son bu mu titré album bi ndax premier son bi su ma juumul mi ngi ko tuddee Omar Pène waaw le mot Omar Pène nag soo leen xool aussi dafay refléter aussi ci film bi nga xamante ne moom la projeté mu am connexion ak album bi waaw yéen ñëpp xam nga ni la moo Omar mooy turam le mot Pène nag jubluwul pour wax Omar pen waykat non non non jubluwul pour wax Omar Pène waykat mais dafa jublu pour wax mbindam moom parce que le mot Pène moo un mot en anglais li muy signifier mooy un stylo waaw maanaam le stylo de Omar mais jubluwul pour wax la chanteur Omar Pène sincèrement ko ça n'a rien à voir ak leçon d'Omar Pène dafa jublu pour wane te aru dafa jublu pour wane xale maam ci boppam. yu film it boo leen dégloo son bi bi amul ay sonorité yu danse yooyu sincèrement quoi 18 titres yëpp soo leen xool you know nigga bi dafa ñëw bind quoi dafa ñëw bind. waaw man su nag ma gëm ni sincèrement album bi génnew ko pour Sénégal yëpp non non non ko pour Sénégal yëpp mais man dama jàpp ni sax sénégalais yi nga xamante ne yàgg nañ topp Omzo Dollar ñu film yi ñoom duñ ko mës a critiquer parce que dinañ xam ne lii mooy istilam waaw ñu ji bëri bu ñuy déglu Omzo Dollar mbindam mun naa ne ñi koy dégg bëriwul waaw parce que moom fi muy waxee dafa kawe de trop quoi man loolu laa gëm quoi parce que la rapport Omzo Dollar du un rapport boo xamante ne yu film yi dafay jël temps presque benn deux ans war a génne albumam you know ñëw di jox sénégalais loo xamante ne xamuñu ko quoi da nga naan yow en tant que chroniqueur yow yaa comprendre niveau album bi wala sa niveau moo yeggul ci album bi waaw mais sincèrement daal sama gars yi déglu yi bëri ci album bi c'est un album vraiment dope waaw niveau bu kawe niveau mbind mu kawe la saay saay poésie la ko tuddee saay saay poésie nag c'est une confirmation ne moom you know am seen c'est le goat c'est le goat of Galsen waaw moom dafa ñëw pour confirmer loolu ne bu fekkee ni ci wàllu mbind kese la non maa ci mën ñëpp waaw Choumi TV nag ma gis ni peut-être benn erreur rek la def quoi sincèrement te boobu dama koy wax ne dama jàpp ni que ba muy génne album bi yéen ñëpp gis ngeen ni dafa génne album bi ba pare door a projeté film bi naan loolu mooy problème bi mais su fekkoonte ne dafa jëkk génne film bi sénégalais seraan ko ba pare ñu ci bëri ñu ñu passé à côté du ñu passé à côté waaw mais ñu ci bëri ñu nga xam te ne dañ ko critiqué ci album bi mu naa ne suñu seraanee film bu mu ci projet bi dinañ comprendre lan mooy concept album bi waaw sincèrement dama gis ni erreur boobu rek la def laataa mu doon génne album bi di ko exposé man su dama gëm ni dafa waroon génne film bi sénégalais yi saraan ko ba pare pour am une idée générale lan moo lan moo naroon album bi. ñu ci bëri seen ñu saraan film bi di ngeen gis ci début film bi dafa am benn mère boo xam ne daf ko feeñu mais mère bi ko feeñoo dafa benn miracle bu ci am quoi mère bi dafa ko jox benn stylo boo xamante ne. yu film yi ba ko om soo daalo yóbbee këram ba muy bind lu mu ci teg rek dafay dem quoi lu mu ci teg rek day yomb. waaw ah, ma bëgg leen wax nag ne ça ne va pas dire que ni daf leen bëgg expliquer ne loolu mooy vie am ça ne va pas dire que ni daf leen bëgg expliquer ni que loolu moo ko dugal ci game bi je pense pas mais c'est un message boo xam te daf ko codé waaw man su mi nag ma gëm ni dafa bëgg véhiculer un message tout simplement juste rek pour expliquer sénégalais yi ne que moom niveau mbindam ci biir game bi c'est un miracle waaw mais ça ne va pas dire que ni que Omzo Dollar ba mu nekkee booy dafa benn maire bu ko mos a feeñ ñu jox benn bic you know seen jour boobu noonu ba léegi lu mu bind rek dafay dem non ça ne veut pas dire sama xalaatu bopp waaw dama gis maire boobu noonu day représenter comme le miracle de sa plume man loolu laa gëm ne loolu lay définir quoi ma gëm ne nag benn erreur la def mooy dafa waroon njëkk a génne film ba pare sénégalais seraan ko suñ ko seraanee comme ça ñu mën a comprendre lan mooy concept album bi waaw mais sincèrement album bu dóob la album bu dóob la Omzo Dollar sama gars li may wax rek mënoo lim cinq rappeurs yi gën a dóob ci game bi doo ko ci boole waaw mun naa ne mooy deuxième wala troisième meilleur rappeur bu dàq bind ci Up Galsen waaw sincèrement quoi gisuma rappeur bu ko gën a naay technique d'écriture ci game bi gisuma ko sincèrement quoi gisuma ko quoi ci biir bi waaw Choumi TV nag gis naa ni même moment bi nga xamante ni ci la doon publier album bi ñu ci bëri seen gis ngeen ko aussi mu publier waale ne bii moo doon deuxième et dernier albumam mais nag deuxième et dernier album ça veut pas dire que ni que bii mooy dernière fois mu wax ci hip wala bii mooy dernière fois mu génn di rap you know je ne pense pas waaw ndax yàgg nañ fi gis ay nit yoo xamante ne dañuy projeté ni boobooy seen dernier album mais ça veut pas dire que ni dañuy arrêté seen carrière je ne pense pas parce que dégguma ko mu wax loolu mais ñun lay sénégalais ñu ngi koy déglu su fekkente ne dafa arrêté carrière am aussi na génn communiquer ak sénégalais yi quoi. waaw en tout cas daal sama gars yi ne waroon naa ko génn pour mun ko wax mais sincèrement maa ngi ciy jégalu depuis boobu ba léegi def ma ay vidéo you know seen Choumi TV toogoon naa benn un mois boo xamante ni kenn déggu ma loolu rek moo waroon mosuma ci wax quoi waaw lii nii daal mooy doon sama xalaat Choumi TV di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous ci yeneen vidéo bëri cas suma sañse bëri cas defet sumay woo mode avion maa jas am na xaalis sama kalpe dégg naa